ñaar korent man nag fas yéene naa lii duma dellusi ci yéen ci naqar ndaxte su ma leen tegee naqar kuy seddal sama xol ku dul yéen ñi ma teg aw naqar looloo tax ma binde noonu ngir bañ a agsi am naqar ci ñi ma waroon a bégal am naa kóolute ci yéen ñépp ne sama mbég mooy seen mbég ci biir tiis ak xol bu jeex laa leen bind samay bët ak ay rongoñ binduma leen ngir teg leen naqar waaye ngir ngeen xam xóotaayu mbëggeel gi ma am ci yéen su kenn tegee moroomam naqar du man la ko teg waaye man nanu ne yéen ñépp la ko teg matul may réyal mbir mi àtte bi ko mbooloo mi teg doy na léegi nag baal leen ko te defal xolam ngir bañ mu sóobu ci naqar wu ëpp kon maa ngi leen di ñaan ngeen feddali seen mbëggeel ci moom nattu leen moo tax ma bind leen it ngir seet ba xam dingeen dégg ndigal ci lépp ku ngeen baal ma baal ko itam man nag su ma baalee fekk am lu ma war a baale yéen a tax ma def ko ci kanamu kirist ngir seytaane bañ a am bunt bu mu jaar ba nax nu ndaxte réerewunu mbir ay pexeem ba ma eggee Trowaas nag ngir yégle fa xabaar bu baax bi ci kirist borom bi ubbil na ma ci bunt waaye sama xel dalul benn yoon ndax li ma fa fekkul sama mbokk tiit noonu nag ma tàggu leen daldi dem diiwaanu masedowan waaye cant ñeel na yàlla ci suñu booloo ak kirist daf ñu yóbbaale saa su nekk ci gawari ndamam tey jaar ci ñun ngir turu kirist jolli fu nekk ni xeetu latkoloñ di tasaaroo ndaxte ci yàlla xeetu kirist gu neex lañu di gilli jëm ci ñiy mucc ak ñiy sànku ci ñi mujj ñi xet gu sedd lañu guy jëme ci dee ci ñu jëkk ñi xetu dund lañu guy jëme ci dund kon ku mën a àttan yen boobu nun nag melunu ni ñu bari ñiy baana baane ci kàddug yàlla waaye ci suñu booloo ak kirist nu ngi waare ak xol bu laab fa kanam yàlla ni yonent yàlla